yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru août ci atum 2024 jusqu'à nouvel ordre mu nekk nag nouvelle bu naqari boo xamante ne rek daal dinay wàcc nag ci animateur bi mi nga xamante ne rek jamono ji nag intérim bi nga xamante ne daal dinañu koy fasal nag ci ab note de service bi ñuy jot ne rek directeur bi di Babacar Fall mu nekk dàq boo xamante ne rek daal dinay am ginnaaw ab vidéo bu ñu fasaloon nag ci réseaux sociaux yi nga xamante ne rek animateur yi nag animateur bi lee doon na ci indi ay leeral foofu ci rajo moom animateur bi nag dañ ko daal di tere rek boobulee antenne ni ki tey ci altine ji nag ba nouvelle ordre lañ ko daal di wax ñu fàttali leen moom animateur bi daal di war na def ab vidéo doon fësal lekk ak yëkkati kàddu di xam ne ñenn ci journaliste télévision Futurs Médias yi après bordeaux bi nga xamante ne rek ilimaanu jëwriñ bu njëkk bi di Ousmane Sonko nag doon na amal ab tukki ba nemmeeku fa fa jë dëkk bu sell ba di Touba Mbacké ni ki ñaar fukki fan ak benn ci weeru août ci atum 2024 laata rek màggal gi ci mbir mu nu mel nag télévision Futurs Médias dafa daal di fësaloon ab vidéo boo xamante ne rek nañ bu mu datee boobu ak léegi mat na ci juróom benn at daal wax ne rek ilimaanu bu njëkk bi nag mi ngi ci kër xalifa général des Mouride mbir mu mel nag moom la daal di rek weddi woon xëy na loolu la ñu njott rek moom moo waral nag ñu daal di koy euh, suspendre ba tey ci wàllum xibaax bu ñu jógee ko foofu dañuy àddu rek wax ci liggéeykat yi nga xamante ne rek nekkoon nañ ca King Fahd Palace ñu daal di leen dàq seen lim toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-benn nag ne nañ daal euh, boobule otel nag lu jég njàkk ak képp ku ko yàq rek kii di Macky Sall ak kii di Racine si nag euh, kenn du leen ca génne ndax nag lu fa yàqu rek ñoom ñoo ko fa daal di yàq ñoom liggéeykat yooyu nag ña ngay sàkku rek ñu digolal leen boobulee bërëb nga xamante ne rek doon nañ fa liggéey ginnaaw buñ leen fa dàqee rek ne koom-koom gi dafa dal di wàññeeku euh, mu nekk nag juróom-ñaar fukk ak juróom benn liggéeykat yoo xamante ne rek ca King Fahd Palace la daal di nekk nag ginnaaw rek seen face à bi nga xamante ne doon nañ ko amal presse bi nit ki tey ci altine ji yemook ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru août ci atum 2024 ña ngay sàkku rek ñu daal di leen dugalaat ci mbir nga ànd ak député peuple bi di Guy Marius Sagna ginnaaw nag bu ñu accusé directeur général ba di Racine lépp lu jig rek moom mooy njàkk seeni problème yi ñu nekk yëpp moom moo leen ko yóbbee ndax yëf yi nag ci jamonoy Covid 19 la woon la directeur bu hôtel King Fahd Palace nag daal amaloon yooyu la dàq nga xamante ne rek jot na dàq toll ci 76 employés yoo xamante ne ñu fa doon liggéeyee lañ leen dàqee du leen rek ne leen nag manque koppar maanaam daal problème koppar moom moo taxoon ñu dàq leen bu ñu sukkandikoo nag ci kàddu yi nga xamante ni rek daal dinañ koy yëkkati député bii di Guy Marius Sagna nag ne na daal yëfi injustice dëgg la mbir mu mel nag nañu bàyyi rek di def nag yenn yi ba tax na nag ñoom ci seen jëmmi bopp rek ña ngay daal di sàkku rek ci président groupe parlementaire bi nag mu daal di leen jàppale bu baax waaye nag li gën a garaaw nag ci boobu mbir moo ne ñoom si seen jëmm bopp nag nee nañu daal député parlementaire ak député yi nga xamante ne ñoom ñoo fare woon ci nguur gi dañ doon ñëw ci boobu lee hôtel te duñu fay ñaar dërëm te hôtel bu nu mel nag sénégalais yëpp ñoom ñoo ko daal di moom ba tey ci wàllum xibaar bu ñu ko foofu nag dañuy àddu rek ci jawriñ bu ñu dénk nag karange biir réew mi ak lépp luy sécurité daal dinay wedd rek ne nañ ab note de service nag la ñu daal di fësal rek ne nañ couvre-feu dina am daal di koy fësal ci ab communiqué niki tey jii nag jawriñ bu ñu dénk karange biir réew mi nag daal dinay yëkkati ay kàddoom ne na nag boobulee xibaar dara lu ci dëgg ci lu ñeel couvre-feu bi ne nag dinañu ko door niki tey ji bu 21h jotee bu ñu sukkandikoo nag ci communiqué bi nga xamante ne rek jot nañu ko fësal ne nañ boobulee communiqué nag dara amul ca moom ministre bi moom si jëmi boppam rek ma ngay wéy di dalal dalal bu baax xelu askan wi waaye nag daal dinay addu rek ci fausse nouvelle yi nga xamante ne rek ña ngay faral nag di ko publier mu nekk mbir moo xamante ne rek ma ngi cay dànkaafu bu baax askan wi waaye di sàkk ci autorité yi nag ñu gën a vigilant bu ko defee rek yenn xibaar yi nag bala ñu ko siwal lekk ñu daal di koy vérifier moom ministre de l'intérieur de la sécurité daal dinay affirmer waat engagement bi nga xamante ne daal dina koy am ngir xeex lépp loo xamante ne rek xibaar bu jaarul yoon la ba tey ci wàllum xibaar bu ñu jógee ko foofu nag dañuy àddu rek wax ci mbirum suuf bi nga xamante ne rek ñii di officier ñi mbirum suuf bi nga xamante ne rek ñu ngi cay tudd nag kii di Farba Ngom ca wetu école des officiers de la gendarmerie nationale lu toll ci mille quatre cent mètres carrés ci valeur un milliard de francs CFA nag la ñu daal di jox kii di Farba Ngom ki ko ko jox ne nañ Macky Sall la mu nekk juróom-ñaari terrain yoo xam ne rek ba ca nekk ma ngay mesurer lu toll ci deux cent mètres carrés ci titre foncier sept mille cent cinq NGA bi nga xamante ne rek ne nañu Farba Ngom la ñu ko jox mu nekk numéro. 197 117 118 196 119 120 121 ci zone yi nga xamante ne rek moom moo nekk ci diggante Cité Avion waaye soriwul dara nag li nga xamante ne rek moom mooy géej gi dinañ lu toll ci 200 mètres carrés boo xamante ne rek ña ngi ko doon jaayee 100 jàpp 150 millions de francs CFA ne nañ nag ki nekkoon ancien directeur général bu police nationale sax jot na am nag ci yooyu les terrain kii di Mahmoud Saleh moom ci jëmi boppam rek am na ñaari parcelles yoo xamante ne rek ba ca ne ma ngay mesurer de deux cent deux cent une mètre carré ak 253 mètre carré boo xamante ne rek ci wetu aéroport Léopold Sédar Senghor la bu ñu sukkandikoo rek eh, ci yoor yoor mi joxe boobulee eh, xibaar ba tey rek eh, coowal kii di Aziz Dabala ki nga xamante ne moom mooy Ndiaye Ndiaye Tyson daal dinay génn nag def déclaration nee na nag bu ko ci kenn dugal ndax moom ci jëmmi boppam daal mësul organiser rek ab cant mu nekk na xibaar bi nga xamante ne rek daal dina koy fësal ba tey ci wàllum xibaar bu ñu jógee ko foofu nag dañuy àddu rek wax ci Sidi Diop mi nga xamante rek daal dinañu koy àtte rek niki tey jii ginnaaw mu doon dawal ab oto boo xamante ne na daal rëccu dëgg rek la am moom Sidi Diop niki tey amul benn yoon permis de conduire moom nag nee daal li def doy na waa trop waaye nag li ko ko yóbbee lenn ginnaaw bu mu tourné rek ab clip nag ba deux heures du matin ci la daal di xiif lool nag doon wutali rek Brillance Doré ba nag moom ci jëmi boppam daal ko doon dawalal waaye nag bile yoon dafa daal di def erreur dawalal boppam nag te yóbbaalewul li nga xamante ne rek moom mooy permis ci assurance bi nga xamante ne moom lañu ko toppee ki di ci di jopp daal dinay ne nag lañ wax ne nag document yooyu dara baaxul ca ne na moom ci jëmi boppam nag xamul ca woon ndax ki ko oto bi daal daf ne ko yooyu les këyit mën na dem ba tënk mu mel ni rek kaddu yi nga xamante ne rek eh, kii di Sidy Diop eh, daal dina koy yëkkati nag bu ñu muytulee rek mën na ko may nag ab liberté waaye dakk ak lépp nu mu ci mënti doon daal ay xel daal dinay eh, tey lool ci boobu boobule kaddu. ba tey ci walum xibaar nak buñu joggé ko fofu dañuy daal di wax rek ci faatu ki nga xamantene mom moy Aziz Dabala ki de Nabulay nak melna ni dal joué na ci rôle bo xamantene rôle bu doy wala mom Nabulay mi nga xamantene dal nañ koy tek loxo ba placé ko garde à vue fofu ci division d'investigation criminelle di dik ñel nak enquête bi nga xamante ne ñu ngi koy def ci ñaari faat yi nga xamante ne rek nemmeeku nañ ko nag ca Pikine Technopole ne nañ nag kii di Nabou bu ñu muytulee rek mën na laale nag ci boobu le mbir maanaam ci génn àdduna kii di Aziz Dabala ak kii di Wally moom artiste bi nekk fecckat moom ci jëmmi boppam rek dafa am nag ñaari preuve technique yoo xamante ne rek daanaka daal am na lu mu wane ci moom ndaxte nag ne nañ téléphone am ko daal di localiser ci appartement Aziz Dabala ci jamono bi nga xamante ne rek wax nañ ne nag Aziz daal ñàkk bakkanam waaye nag moom ci jëmee boppam ci jamono bi nga xamante ne rek daal nay wax ne da nelaw bu ñu sukkandikoo ci enquêteurs yi ci sunu nattangooy seen news daal di koy euh, fësal nag mel na ne kii di nabu Leye moom ci jëmee boppam demoon na ci appartement ba avant ak après nag ñuy faat kii di Aziz Dabala ak kii di Wali bu ñu sukkandikoo rek ci journal bi di Libération ñoom enquêteurs yi nag ak division d'investigation criminelle daal dañuy gis nag ne Nabou Leye moom ci jëmee boppam déposé woon na nag Aziz Dabala ci yoonu ñetti mbaar ba noppi waaye nag yóbbul ko ca këram ci mbir mu nu mel nag ki di Aziz Dabala bu mu wàccee rek la ñu ko dal di topp ñi ko topp di Mamadou Lamine u seeni Diaw ak ki nga xamante ne Mamadou Lamine Diawo Ousseynou Diaw Assane Diaw ñeenteeli nit mi nag ba nëga ni daal ñu ngi koy seet waaye nag mënaguñu ko teg rek ay gët ba tey ci wàllum xibaar bu ñu jógee foofu nag dañuy àddu rek wax ci ñett doomu aadama yi nga xamante ne rek daal dinañ leen teg loxo bu ñu doon jéem a toppandoo nag signature élimaanu jawrin bu njëkk bi di Ousmane Sonko xibaar bu nu mel nag eh, kii di Babacar Touré moom moo ko daal di fësal ni tey yemoo ñaar fukki ak juróom benn ci weeru août ci atum 2024 mu nekk exclusivité boo xamante ne rek kéwlu daal dina koy partagé jamono ji ñuy wax ak yéen nag ñett doomu aadama yoo xamante ne rek jàpp nañ leen yóbbu leen ca tribunal bu Ndakaaru ginnaaw bu ñu leen tegee loxo ñu leen jàpp nag di division d'investigation criminelle ak police judiciaire euh, gannaaw ay nit yooyu nga xamantene rek jot nañ len di déglu ba nopi nañ len di topé moy faux usage ak usage de faux ginnaaw buñ doon falsifier nak ab signature ki di ilibaanu jawrin bu njëkk bi nak di Ousmane Sonko ngir mëna am ay audience ci bitim rew bu ñu sukkandikoo ci service ministre de l'Intérieur, nga xamantene rek daal dinañuy saisir division d'investigation investigation criminelle di dik ki nga xamantene mom moy mooy wéy ci turu Serigne Mbaye tak nañ ko loxo safi tepsi elage Mamadou Dia Diallo ak Ali Bamanko ñoom ñëpp nag dañ doon jéem a luubal ak njuuj njaaj ñeel service yi waaye nag général Jean Baptiste ak ñamu àndal nag ginnaaw bu ñu soupçonné yooyu leen nit ñu gis ne rek dañoo daal di defar ay cachet yoo xamante ne rek dañ cee falsifié nag signature Elimane Diop bu njëkk bi di Ousmane Sonko ngir am audience nag ci wetu premier ministre Libi bi ginnaw bu mu leen dalale ba noppi nak da ci daldi waxtaan ak ben sénégalais mu nek mbir mo xamantene rek mbir mu doy wal ginnaw jëf ci nak ba mu daldi di rek ci lañu daldi ñëwaat nak ubbi ci rek ap enquête ñom ñoñu nak jot nañ leen di tek loxo ci jamono ji nga xamantene rek ñu ngi doon dem ci yenen réew bu africain yi ñom nit yoy nak dar nañ leen déglu ba noppi jamono ji ñuy wax nak ña ngi leen placer garde à vue fas nañ leen déféré ci parquet waaye nak dañuy xaar rek seen jakarlo ak procureur de la la république du ñàkk rek dinañ ci amaat yeneen i xibaar jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàtte abonné ba cloche de notification yi ngir mën a am yeneen i xibaar